asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida saddid lisaani nawwir janaani sofi amaani wa zid baraayi Eh, maa ngi nuyu ay nuyoo yu tedd yu gën a mat te gën a jotale eh, di ko def ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am li tariqatil ko ci eh, saahibil fadila Cheikh Ahmad Tidiane Ba waaye jaare ko ci moom teg ko ci loxoom mu jottali ko ci eh, mbooleem njaboot gi hmm. te njaboot googee buñ si tuddee Cerno Ibnu Omar mii nga xam ne mooy rakam te loxol ndey jooram eh, te di ko jàppale ci liggéey bi ci anam nga gën a rafet yaakaar naa ne dana doy sëkk moom tamit mën ko koo joxaat mu jottali ko kon sëriñ bi ñu ngi lay jottali nuyooy sëriñ boobu waaye ay ndokkeelam ci bis ci bis yu mag yi nga xam ne mooy am fii nga xam ne mi ngi koy ànd ak yow ci am xelam ak ci xolam ak ci ruuxam fam nekk waaye day mel ne loolee mi muy rëy rëy yéena ja dafa ëpp loola moo tax mu nekkoon naa sàkk ñoo xam ne dañu mel ne sama yéena joojee ma am dañuy seq ay jéego nag ñëw ba nga xam ne loolu dana mën a firndeel ne mi ngi ànd ak yow sa bis yi ngay def loolu moo waral suñu jéego yi ñu jóge Touba ba ñëw fii te kenn ku ne xam na ne diggante bi lu fi jaral nit rek mu jóge fa ànd ak mbooloo ñëw lu ko ñor la kon sëriñ bi loolu mooy suñuy kàddu yi eh, suñu jéego yi jóge Touba waaye suñu kàddu yi ñuy wax te xam nañ ne lottu nañ ci jottali ko na nga xamee ne bu toogoon fii noonu la koy waxee kon yaakaar naa luñ ci mën a wax tamit day nekk feeñal suñu yéene rek waaye danañ lottu ci ci waxe ko na mu ko bëggee ak matale ko na mu ko bëggee waaye daal euh, jot amut xam nañ ne bis yi ku ci nekk genn jot du am moo tax du ñu guddal te xam nañ bis yi ku ci nekk ni ngay manqué ak jot moo tax euh, ndokkeel yooyu rek lañ lay jottali ak di la béral ne ñoo ngi koy ànd ak yow waaye tamit di ñaan tamit yi nga xam ne moo fi am te lenn lu ci ne boo xoolee fekk alxuraan mu am ca cëslaay ci alquran ndaxte yaakaar naa fii li fii am ni ko ñëpp xame mooy tudd yàlla yaakaar naa loolu moo fi am boo demee ci alquran fekk ay ayaat yu baree bari suñ borom di soññee ci tudd yàlla ak ak fàttaliku ko di ko fàttaliku waaye di ko wax ci saw làmmiñ muy firndeel ne yaa ngi koy fàttaliku moo tax lam ca wax rek wala dikrullahi akbar rek doyoon na sëkk ndaxte loo xam ne moo gën a màgg suñu borom wax ko ci alquran doy na sëkk moo julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa boo demee fekk ci saayam ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa yaakaar naa ne fii ñu fiy teew ñëpp seeni làmmiñ dana tooy ci loolu dana ci sax di ko def mu nekkaat lu am cëslaay ci alquran waaye yaakaar naa istixfar boo demee ci alquran istaxfiru rabbakum innahu kaana gafaara yursili samaa aleykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara kon yaakaar naa ne boo doon topp activités yi fi am yëpp loo ci jël rek noonu lay amee cëslaay lu leer ci alquran kon lii day mel ne da koy defal jullit ñëpp di ci wuutu jullit ñëpp ñaan yi ngeen fii def tamit dégg nga la suñ borom wax ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko ay joon mais ñaan mooy li nga xam ne mooy tax ba suñ borom yërmaane jim ñu làqal mu ñu koy sotti fu ñu toll ñaan mooy tax ba yi nga xam ne moo war a wàcc suñu kaw bu ñu ñaanee suñu boroom mu fegal ñu ko ñaan mooy tax ba li ñu bëgg di ko mébét te lot si man koo am ñu ñaanee suñ borom ci ak mbaaxam ak ci tabeem may ñu ko te loola tamit mu bokk ci li fi am kon daal sëriñ bi mi nga xam ne lii ngeen nekk nekkalu leen fi rek gox bii waaye julliti àdduna ngeen koy defal moo tax tamit moom mu ànd ko yéen ci ab xolam waaye sàkku mbooloo ñu ñëw ba agsi si yéen ngir firndeel leen lool kon mi ngi ñaan mi ngi ñaanal Cheikh Ahmad Tidiane mu yàgg fi lool te wér yàgg taxawe jataay bii te li fi am ci ay jëf yu rafet yu sell yu matale lépp suñ borom nangu ko ci anam ga gën a rafet te mu def tamit jataay bii mu yàgg ko ànd ak yéen euh, kon daal euh, ci gàttal ndaxte ni ma ko waxee bis bii moom xam nañ xataayu xalifa bi ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi moo tax loolu ab tënk rek lay doon waaye lu ma tënk-tënk tamit du ma euh, fàtte ne sëriñ bi bi ma jógee euh, Touba euh, mu boole ma ak sëriñ Moustapha Diouf mii euh, nga xam ne moom da doon wëllëre Thierno Abdoul Aziz mi fi jógee taxamadahullahu bi waasi rahmati yàlla na ko suñu borom sotti ay yërmandeem mu doon wëllëreem mu nekkoon fii directeur Sodagri mu jaxasoo woon ak moom loolu Thierno Abdoul Aziz moo tax bi mu fi bàyyeekoo sëñ bi yabal ma ma ko doon jaale sil daf maa boole ak moom waaye tey tamit mu mu boolewaat ma ndax day kenn ci sëriñ bi ba pare di kenn ci kër gi loolu noonu la demee waaye mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi nekk ngara tey jàmbaar lool am fa kër sëriñ Touba tabax fa jumaa tabax fa lépp di góor góorlu te loolu ñu koy def la ñuy sori sori Touba euh, fàttewuñ la leen indi woon fii fàttewuñ yar bañ leen yare Touba ak ci yeneen gox ya nga xam ne sëriñ Touba moo ko sanc moo tax bi ñu dikkee fii tamit ñu fi euh, def la nga xam ne moom lañ leen yare ba tabax fi jumaa di góor góorlu di lay am Tuuba ci ay yëngu-yëngu yëpp seen loxo di ca dugg ñoom ñoo tamit mooy mbooloo mii bi ñu yëgee mbir mi comme ñoo fi nekkal sëriñ bi ñun léegi-léegi la ñuy ñëw ci yu nii waaye ñoom ñoo fi nekkal sëñ bi ñoom ñooy représentant sëñ bi fii moo tax sëriñ bi boole ma ak ñoom ñu àndaat ñëw ngir gën a jëmmal lii ak gën a firndeel tamit ne mbooleem képp koo xam ne fii sëriñ ba moo la yëlif ca Touba dafa bëgg ñii nga jàppe leen na ngeen jàpp ngeen ko jàppe moom lu mu mën a nekk lu ñu mën a nekk rek ci lu mel nii ngeen taxaw ca ci anam nga gën a rafet ndaxte l'islam bi benn la ñoo ñoo bokk mission ñoo bokk lu ñuy dox bokk deret bokk dëkk bokk lépp kon loolu ci gàttal rek ngir bañ a guddal loolu laa ci amoon lu ma ci eh, teg di ñaanalaat sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ko wér te yàgg a taxawee lii mbokk yi nga xam ne tamit ñoom ñooñu biñ duggee ci dëkk beeg léegi ñoom ngeen ñu booleel eh, ñi ngi leen di seereel ne eh, maanaam nit ñu taxawoo kat ñun mënuñu ko taxawoo suñu bopp suñuy kër de dana misaal te ñun sax wax dëgg yàlla eh, loolu duñu ko xaar ndax xam nañu suñu kër lañu ñu ñëw te kuy ñëw sa kër moom doo soppi doo soppi cin doo soppi lu ñuy lal doo soppi toogaay fii suñu kër la buñ fi dikk daara dañoo jóge ci daara Touba daara la daara ju yaatu la waaye daara la fii tamit Medina Gunaas daara la ndaxte ñi ko sanc ñëpp bañ fa ñaari dëkk yooyu ñi ko sanc bañ koy sanc xaaruñu woon ne mbooloo mi dana leen fekk waaye boo nekk la yàlla te muy dëggu bis bu ne am day am loo yokk ndax ku la seen fële xemeem la bu agsee jàpp la dootu la mën a ñàkk mu far toog loolu moo yàkkale dëkk yëpp Medina Gunaas loolu moo ko melal nii Touba loolu moo ko mel nit yeneen dëkk yëpp tamit loolu moo leen mel noonu kon daal ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm te di leen ndokkeelaat bu baax a baax allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ceerno eh, Ibnu nee na xanaa dañuy dañuy àbb kàddu bismillah rek suñu àbb suñu àbbee kàddu go rek bu boobaa ñu mën leen a wax bismillah wax nga ci sa biir wax ne ci sa béréb nga jóge waaye itam ci sa béréb nga ñëw ci daara nga jóge ci daara tam nga ñëw nee na kooku soo ko waxee bismillah dangay ngay àbb bismillah bi rek waaye kooku moom mooy bismillah boppam nee na daa iman ay nit su fekkente ne jotante nañ mën nañ waxante wax bu baax doonte naxante la seen diggante loolu mën naa nekk waaye ñun suñu diggante loolu amu ci <laughs> du ñu wax du ñu waxante waxu naxaate déedéet pour rek bëgg li neex keneen rek keneen ki rek nga wax ko waxee ko noonu yéen soo leen fi toogee doo leen def loolu ñun tam suñu demee ci yéen suñu fa toogee duñ fa def loolu luñ fa wax dafay dafay fekk lu nekk ñun fa yàlla naka fekkonte ne am na lu ñu fekk suñu diggante loo xam ne yàlla moo ko def loolu du ñun ñoo ko def loolu yàlla moo ko def yàlla nag su defee dara loolu dafay am dig diggante Ceerno Cheikh Al Hadj Mouhamed Saïd ak njabootu Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu nee na loolu li nekk seen diggante dëgg la nekk na diggante ay jullit yëpp waaye nag li nekk seen diggante ñoom ñaar lu ràññee la nee na ñun de li ñu seede ñun fépp fu ñu dem ci àdduna bi fekk fa ay taalibe Cheikh Ahmad Bamba suñu gisee njabootu Ceerno ci teraanga boobu lañ leen di jox lool nañ seede ñun ci ñoom nee na xam nañ loolu yàlla moo ko defee noonu nee na bërki démb rek Thierno mi ngi fiy wax mbokk bi nga xam ne moo nekk diggante Thierno ak Cheikh Ahmad Bamba su fekkente ne neena su fekkente ne nit lim na ay ay maam benn ñaar ñett fi ñuy nekk fukki ak benn foofu la seen maam yi dajaloo fekk ñaari maam yooyu ñoo bokk benn baay ndeke lii lu ñu fekk la yàlla defal leen mbaax mi jël mbindeef bi jublul mbindeef yi ci ñoom yàlla def tam ñi yëgante seen bopp ku nekk yëg cëru keneen ki te lu amul lu bokkul ak nag boroom di ko fiir fiiraange ku nekk yëkk na cëru keneen ki waaye fiir kenn fiiraangewul keneen ki yàlla defal leen noonu nee na loolu ñu ngi koy sante yàlla Cerno kontaan na sëñ Muntaqa lii mu fi def naka fekkonte ne xam na ne moom moo am moom moo ko moom loolu moo tax mu def nii mu defee nee na mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekkal Cheikh Ahmad Bamba ci Wélingara nee na li nga wax ci ñoom ñun tam loolu nañ seede ci ñoom bokk na ci bokk na ci ci ay dalilam bi Ceerno di dem suñu benn jumaa bi ñu tabaxoon Wélingara mbooloo mi def ko fa mu dem di tijji jumaa ji moom Ceerno Ibnu Umar ñi ngi ko dalal këru Sëñ Tuubaa bi nekk foofu ñoom mbooloo mi ak mm, communauté mouride bi yëpp ñoo dajaloo déggoo ci loolu. loolu li muy wane li muy firnde mooy li nekk si nekk ci diggante bi. ñu ngi ñaan yàlla nag subhaanahu wa ta'ala ni yàlla defalee suñu mag ñi. ba ñu may ni ñu mel. ba ñu mel ni ñu mel. ñun tam yàlla nañu yàlla may def mel noonu. nee na sëñ Muntaqa moom tam ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal ay fanam. yàlla booleel ko ci wér ak kattan moom tam mu yàgg gindi taalibe yi yàlla may ñu ñun ñëpp dégg li ñuy waxal ñi mën a jokk mbokk bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na mbooloo mi tam kontaan na donte sax ñëw leen woon seen i tànk. nit ki fépp fu xolam nekk ma ngi fa waaye su fekkente ne nag nii tam am na bi boobaa xol yi itam dinañ gën a kontaan waaye mbaax mi moom lu am rek la naka fekkoon ne ànd bi ànd ànd xol la lépp lu ëmb ak lu nekk ci lii ci mbaax yal na leen ko yàlla defal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ak ci barke suñuy sëriñ allahumma salli na kontaan kontaan nañu rek kàddu bu ñu mën bu ëpp ne kontaan nañu mm-hmm. nee na Ceerno Cheikh El Hadj Mouhamed Saïd radiallahu taala anhu bokkoon na ci ay waxam nee na nit ki soo xamul na mu mel ci yow rek seetal yow nanga mel ci moom noo mel ci moom rek moom noonu la mel ci yow <laughs> nee ni ni yàlla defee diggante bi ak ni ngeen ko biralee ak ni ngeen ko waxee nit ñëpp gis nañ ko xam nit ñëpp gis nañ ko nangu nañ ko xam nañ ko nangu nañ ko nee na barki démb rek mbokk murit yi ñi nga xam ne dañoo ñëwoon fii ci daaka bi ay ay taat bu nekk nag noonu nañuy def dajale seeni buum ak seeni yëpp ñëw ziyaar sëriñ saa yu ñëw tam dañuy ñëw ñoom ñëpp ñi ñëw indi seen bagage yi ñuy indi yëpp ñëw nuyu ak ziyaara te di wax ne li ñuy ñëw ci ndigalu sëriñ bi dañ ko defee moom moo leen ko digal loolu at wu nekk at wu nekk dañ koy def bërki démb rek lañ ñëw fii <laughs> waxtaan nañ ci sax lu bëri alhamdulilah. nee na at at bu nekk suñu ñëwee day waxtaan ak ñoom ak fekkoon na yàlla moo def noonu nee na wa ala xaalin kontaan nañ bu baax a baax a baax nee na bismillah nag. nee na xanaa kam di ngeen noppaliku ba ëllëg bu neexee yàlla. kii rek bëgg a dellu rek. Mm-hmm. Mm-hmm. daal di daal di wàññeeku. lii rek moo ñu so tawi on on gaccitiiɓe tan ɓe mbino ko so ɓe ngarii eh. tan ɓe njuuriima jettinani on salminaango ceerno o e konngol mum tan ɓe ɓe to nde wonnoo ko ɗum tan woni ko umminnooɓe nee na loolu loolu du rek loolu lépp la <laughs> léegi xanaa mu rek julli tàkkusaan rek mu mu yeewi leen incha allahu taala ñi ñi barkeerloo rek julleen rek mbooloo mu yeewi leen fatiha salaat alfatihi bismillahi arrahmani qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad